comme di nga ko waxee Mame Birame actualité bi fii moom au Sénégal dafay nekk en mode fast track <laughs> presque deux jours a ñu fii euh, am leneen lu bees mais tey suñu titre bi Mame gis naa ni tey moom ñi nga nar laale moo neex <laughs> Ismaïla la sabote le maquis euh, Barth euh. dans le show révélateur Amadou Ba pour enterrer les socialistes. ma boog boo gisee titre bi nga xam ne on a tellement de choses à dire que yaakaar naa ne amul daanaka beneen sujet bu ci xajoon. Mhm. puisque sujet yooyu tànn noonu yaakaar naa benn bu ci nekk rek. waroon na mat live boo xamante ne nii dañ koy consacrer une de temps. bien sûr dinañu jéem a def le tour nag pour waxtaan ci eh, très rapidement du ñu bàyyi benn point effectivement comme ni nga ko waxee actualité bi eh, eh, fi mu ne nii yëngu na trop ñu jëm ci élection présidentielle yi nga xamante ne nii moom la ñuy waajal <laughs> mais xadisi man depuis un certain temps depuis le juge du tribunal de grande instance de Dakar. Mhm. Ousmane Racine Thion joxe verdict am dama jàpp ne eh, Ismaïla Madior Fall le président Macky Sall daf ko dàq du ministère de la justice. Mhm. yóbbu ko étranger. moo ko pas dans le sens que dañ koy kàjji mu génn. mais dans le sens de l'éloigner des affaires nationales dans son en son temps ni ñu ko defee woon Alioune Badara Cissé. nga xam ne moo <laughs> daanaka bi Macky Sall arrivé au pouvoir moom la nommé euh, chef de la diplomatie. pour plusieurs raisons. ba ñu dem sax ba à un moment ñu ngi doon wax ne euh, Alioune Badara Cissé moomu yàlla na ko yàlla yërëm. da daan def da daan def des tournées au niveau euh, de linternational international sans pour autant mu yëgal ko sax le président Macky Sall. Mhm. parce que euh, euh, lu ñu mënoon a comprendre mooy euh, boo daan wax le numéro 2 de l'APR da ngay jàpp ne Alioune Badara Cissé la. Mhm. c'était non discutable depuis que euh, en 2008 déjà d'abord ensuite 2009 ba ba ñuy créer APR ñoom ñaar ñoo ci gënoon a fës. Mhm. donc le président Macky Sall arrivé au pouvoir jox Alioune Badara Cissé ministère des affaires étrangères ñu ñëwaat keneen koo xamante ni jox nañ ko ministère des affaires étrangères. muy Amadou Ba nga xam ne te ni moom tamit dama jàpp na ba ko président di jox poste boobu. Mhm. c'était pour l'éloigner des affaires nationales. Ismaïla Madior Fall nag daanaka pour man c'est la même chose. comme président Macky Sall poste ministériel bu fi ñu ko yóbbu rek c'est pour l'éloigner des affaires nationales. ma ngoog li tax nag mun nañ koo résumer ci benn moo mooy contumace <laughs> li waral loolu euh, puisque xam nga. <laughs> avant Ismaïla Madior Fall di ñëw dañu amoon ministre des affaires étrangères euh, euh, de la justice bu tudd euh, maître Malick Sall. Mhm. maa ngi fàttali bërki démb fële ca Sénégal set que bi ñu jàpp bi ñu toppee Aliou Sall ci mbabooru pétrole beeg gaz bi. Mhm. Malick Sall dafa ne Aliou Sall màkk la jógee li ngeen koy jiiñ defu ko li ñu koy jiiñ defu ko <laughs> donc. mu nekk koo xamante ne nii gaa mën na tëj comme ce qui se passe avec Ismaïla Madior Fall mais du point de vue du droit amul nu mu mën a justifier jàpp yi wala jiiñ yi buñ la nee Aliou Sall luñ koy jiiñ defu ko parce que màkk la jóge venant de ministre de la justice mais danga naan mais quel argument terre à terre. boo ñàkkee argument nag. ma ngoog léegi nag bi nga xamante nii des na lu dul ci wàllu justice. ñu jàpp ne war nañoo euh, comment dire euh, génne ku mel ne Ousmane Sonko ci course élection présidentielle bi Macky Sall ne bàyyil ma indi koo xamante ne nii moom du ñu ne <laughs> Aliou Sall jëlul pétrole bi parce que Macky la jóge ñu indil ay arguments juridiques yu valable yu mu teg sur la table. Mm-hmm. je sais pas yaa may suivre am de. bien sûr mu indi Ismaïla Madior Fall. un éminent professeur. Mm-hmm. de droit. Mm-hmm. boo xamante ne nii ci wàllu xam-xamam. kenn du ko laam-laamee. dëkk yu bari sax jàppale na leen pour ñu bind seen constitution. Eh, eh, très bien donc ba mu koy indi c'était pour que suba ak gannaaw suba bu nekkee ne am na ñoo xamante ni justice jàmmaarloo nañu ak moom contrairement à maître Malick Sall moom en tant que quelqu'un boo xamante ni xam na ci wàllu droit lu baree bari mu mën a am lu mu ko mën a justifier lu mu ko mën a la layalee c'est incompréhensible mm-hmm. malheureusement nag. <laughs> <laughs> pour le pouvoir et euh, euh, euh, Ismaïla Madior boo seet boo moo waral ci titre bi ma bind que Ismaïla Madior Fall saborde le Macky saborde mhm. parce que le président Macky Sall dafa indi Ismaïla Madior Fall pour ci wàllub droit ci wàllub justice hmm, ñu écarter Ousmane Sonko ci wàllub justice tey Ismaïla Madior Fall ak li nga xamante ni yëpp def na ko mën na ñoo wax ne du doon justice mooy baare Ousmane Sonko mais ce sera avocat ministère de l'intérieur. waaw damay dégg souvent professeur Ngorou Mbodj di naan fépp foo xam ne le droit sera dit Ousmane Sonko sera toujours vainqueur. ba boog maanaam Ismaïla Madior Fall dañ koy indi pour mu écarter du point de vue juridique euh, Ousmane Sonko ci course à la présidentielle mais tey jii nii gis nañu ne. ci wàllu justice kenn mënutu ci jaar pour bloquer Ousmane Sonko. lenn moo tax lenn moo mën a tax ñu bloquer ko mooy matraque. la police jaay doole. te li li tax ma wax loolu mooy ma ne euh, euh, euh, xëy na Macky Sall lenn la war a reprocher à Ismaïla Madior Fall ba éloigné ko du ministère de la justice mooy ci wàllu contimence bi nga xamante nii ci la ñu daaneel Ousmane Sonko parce que xam nga xadisi bi ñu demee ba à un moment ñu ne Ousmane Sonko kat dañ ko barricade këram ñu ne euh, procès bi fixé nañu ko ñu ne Ousmane Sonko nee na suñu ko tegalul les conditions yu mën a tax mu dem wuy ji justice du dem te boobu mu teg ko ci ay argument yu leer mm-hmm. puisque ci wàllu diffamation nga xamante ne ni procès boobu mën nga teew comme mën nga ñàkk a teew. Mhm. ci yow la dépendre bu la neexee nga envoyé sa avocat mu teewal la fa. Mhm. ñu gis ne Ousmane Sonko bi mu nekkee ci yoon bi pour dem dafa ñëw ba ci yoon bi mu am un dispositif sécuritaire boo xamante ne ni dalul xelam mu ne day dëpp. Mhm. ba mu ne day dëpp ñu ne ko doo fi dëppee euh, comment dire toj vitre oto génnee ko par force yóbbu ko tribunal. ci procès boo xamante ni am na droit. bañ ci dem il n'était pas forcé léegi bu nekkee dafa jaar ci loolu am beneen procès boo xamante ni mu ngi ñëw te moom bu fay dem mu nar a jaar ci même itinéraire bi il a droit mu ne bëgguma comme ça s'est passé la dernière fois ngeen toj sama vitre oto gazé ma mettre ma ci condition yoo xamante ni su ma ñëwee tribunal sax xëy na la may waxante ak juge ba du ma ci xam dara. Mhm. du nekk dans les conditions. bien léegi ñu ne ñoom. comme que nee na du dem bu mu dem on va le juger par contumace <laughs> xam naa Ismaël dafa ñëw ne euh, président Macky Sall contumace lañ koy juger Macky Sall ne ko luy contumace mu faram fàccee ko ko ñu jà ñu jàpp ne kon contumace bi mooy liy baax mhm. malheureusement pour ñoom <coughs> ci justice boobu nga xamante ni ci lañ naroo ci lañ waroon a jaar ba écarter Ousmane Sonko ñu boole ci coxortaange boo xamante ne nii moo leen poussé ñu ne euh, euh, euh, contumax bi nga xamante ne nii moom la ñu considéré ne Ousmane Sonko moom la du ñu ko dem xaari conseil constitutionnel. Mhm. déjà dès DGE rek dañ koy wax ne contumax nga daal di ne ko génne nañ la ci liste électorale bi. yàqamti mu nekk ab erreur fondamentale. Mhm. parce que tey su ma nee ñoom mënatuñu écarter Ousmane Sonko ci wàllu justice c'est parce que. procédure bi ñu jël la ñu faussé dès e mhm. que DGE taxaw ne du jox Ousmane Sonko fiche de parrainage mhm. parce que coow yëpp foofu la léegi bi nga xamante ne nii loolu am na moo waral <laughs> avocat Ousmane Sonko yi dem saisir tribunal Ziguinchor mhm. moo waral dossier bi dem cour suprême moo waral également bu yàggul dara tribunal bu Dakar dal di jox Ousmane Sonko dëgg encore ba mu waral comme ni nga ko expliqué noonu. Mhm. ku mel ni góoram boobu daal di wax ne. bu nekkee ci yoon la ñu tegu rek Ousmane sonk mooy am dëgg. Mhm. bu nekkee ci leneen la ñu tegu nag ñoom mën nañu wut seeni porox ndollu jaay doole ba def li nga xamante ni moo leen neex te li tax ma wax loolu xam nga en bu ñu nee xadisi la nit ki pour nga nekk candidat. au niveau du conseil constitutionnel da ngay déposer neuf dossier bi day am neuf pièces. Mhm. neuf pièces neuf pièces yooyu Ousmane Sonko ñaar ñoo ko ciy jafe. muy ban muy fiche de parrainage bi ak ban. fiche de parrainage bi ak caution bi ñaar yooyu ñoo ko mën a jafe ci neuf pièces yi nga xamante ne ni moom moo war a constituer dossier bi te ñaar yooyu yëpp amu ci benn boo xamante ne ni ci coobara Ousmane Sonko la pour mu bañ ko def. waaw yooyu yëpp administration ñoo ko bañal yëpp administration la déjà au niveau de la DGE. ñoom lànk nañ ne duñ ko jox fiche de parrainage yi te su fa Modou Khoule ñëwee ñu jox ko su fa Samba Gata Ndiaye ñu jox ko mais kenn daal moo mënul jël fiche de parrainage Sénégal mooy Ousmane Sonko ñu jàpp loolu léegi beneen bi nga xamante ne mën na tax Ousmane Sonko du am euh, comment dire ñu ne see incomplet mooy attestation bi nga xamante ne nii. mooy ànd ak caution bi. quittance euh, euh, quittance lay doon mais mhm. quittance boobu te soo seetloo li tax ay dafe dellu caisse de dépôt et de consignation c'est pour bu wonee quittance bi nga xamante ne ni jox nañ ko ko le directeur de la CDC defal ko ab attestation buy wonee ne trente millions yi mu ngi déjà ci seen i caisse. Ah, loolu tax dem mu dellu fa. loolu tax mu dellu fa mhm. pour attestation boobu la te ñaar yooyu nga xamante ne Euh, euh, euh, Ousmane Sonko daf ko war a boole ci dossier yi muy déposé déjà nga seetlu ne CDC du ñu yombalal Ousmane Sonko jot ci. attestation attestation boobu. non pas parce que dañu nekk ci dëgg mais tout simplement parce que dañuy politique te ka fa nekk tey directeur le président Macky Sall man jàpp naa ne. histoire am bu mu mujjee am ak Ousmane Sonko bokk na ci li gën a tax ñu nommé ko à ce poste là. mu Sall. muy Issa Sall te Issa Sall moomu bu ñuy fàttaliku Sonko dafa fël ba fës yenn fës yi nit ñi di doog a xam kuy Issa Sall bu muy def la sa première sortie di dal ci kaw Ousmane Sonko boobul était directeur de am daanaka agence de développement municipal di post boo xamante ni un poste quelconque daanaka pour un magistrat sax dañ doon euh, poser wu des naka la mun a accepter ce poste là. Mhm. mais def na une sortie dal ci kaw Ousmane Sonko ba ñuy wax ay audio yu ñu génne yu ñu génnewul ci la ne moom jëlee nañ ko post boobu daal di ko yóbbu dans un premier temps Dakar Dem Dikk jëlee ko Dakar Dem Dikk yóbbu ko CDC. waaw Sonko day maye sax promotion noonu mi. <laughs> <laughs> comme nu mu mayee